di ñaan yàlla lu ñu ko ci jaamu rekk mu nungul na ko lu ñu ko ci liggéeyal it mu nungul na ko ci barkeb sëriñ bi di ci fàttaliku di ci màggal ak di ci wormaal sang bu tedd ba sëriñ Faliilu Mbàkke di kenn koo xam ne ba léegi jamono ngi koy gis di ko dégg di ko xam ci lu wóor a wóor di ñaan rekk sunu borom mu may nu tawféex ba saa su ne nuy jox weer wi wormaam ak weer yépp eh, di am nag mbégte ak bànneex saa su ne ci waxtaan ak yéen waaye nag léeg-léeg incha allahu eh, day dajeek eh, loo xam ne du neex a wax ndax jamono Euh, léeg-léeg mu indi loo xam ne rek day kéemaane lool euh, yaakaar naa baax na euh, di leen xamal rekk ni sunu waxtaan wi politik taxu ko jóg koo xam ne loolu rekk mooy sa yitte nga dem feneen fu ñu koy waxtaane bu dee coowal politique rekk la nga dem seeti jataay yu bari yoo xam ne ñu ngi koy waxtaane waxtu yi am na euh, moo xam coowul ku mën a doon loolu nun euh, taxuñoo jóg intéressé wuñu nun ay taalibe yi murit lañu sunu yëngu lépp sëriñ tubaa la sunu yitte ak sunu bëgg-bëgg sëriñ tubaa la sunu yaakaar àddina ak alaaxira sëriñ tubaa la képp koo xam ne wormaal nga sëriñ bi wormaal nga dëkkam wormaal nga njabootam nun ànd nanoog yow jàpp nañ la def nañ la ni sunu bopp ak noo mën a mel ak foo mën a nekkit nun loolu rek la am balaa ñoo tànn dara balaa ñoo xool dara balaa ñoo xool doxalinu kenn ci dara dañu koy natt ci sëriñ bi ba xam ndax dëppoo na ak mbirum sëriñ bi wala dëppoowul ak moom dañu gis rekk loo xam ni euh, yéeme na lool yéeme na ba fa mu fa mu àgg dafa mel ni dafa jéggi dayoo te saa su ne muy misaal ak a màndargaal meloy jamono mooy lii ngeen xam ni moom lañu gis bërki démb mu xew ci penku jumaay tubaa muy barab bu yéeme yéeme yéeme barab boo xam ni ay kéemaanam lépp mëneesu su koo takk mënee su koo wax sax ci biir mbooloo ndax dafa bari ay mbóot waaye bala ñuy ëgsi ci loolu rekk saa su ne faw mu am loo xam ne lu mu gàtt-gàtt ñu di ko fàttali mooy kenn mënta doon ab murit te doonoo ab jullit loolu munul nekk sëriñ Tuubaa la yonent bi tànnoon ne mooy njabootam ca la tànn moom sëriñ Tuubaa kon murit boo gis ab jullit la war naa yor melow jullit war naa yor jikkoy jullit war naa yor definu jullit war naa yor waxinu jullit te jullit yett yi dong nga koy def mooy dangay am imaan bu wóor boo xam ne xam-xam bi koy jàngale mooy tawxiid te loolu mooy tax nga mën a jox yàlla xaqam ba mu mat sëkk faw nga am imaan faw nga am imaan mooy nga gëm yàlla te pour nga am ko il faut nga am xam-xam boo xam ni danga koy jàng muy xam-xamu tawxiid ba Sëriñ Tubaa ñëwee dafa ne sama ak njaboot ay ashharit lañu ashhari ca na mu jàngalee tawxiit ca la sëriñ bi tënk njabootam kon ku dellu ci téere bu mel ni mawaahibu quddus danga xam ak yàlla danga xam la la sax ci wàllu yàlla danga xam la jomb ci wàllu yàlla dinga xam lool ku ko def walla ku ko wax bokkaale nga yàlla dinga nga xam it saa su ne nan ngay xoolee sun borom nan nga koy jàppee nan nga koy wormaale waaye lislaam itam xam-xam bi koy jàngale mooy fiq ndax jullit bi mënula ñàkk ci moom mu pratiquer religion gannaaw ba mu nangoone ne subhaanahu mooy boroomam bi nga xam ne jaamu ko mooy jariñe ñàkk ko jaamu mooy lore amul benn buur bu dul yàlla mu jàpp loolu bu ko jàppee nag day def day daldi war ci moom mu jaamu yàlla waaye mëneesu la jaamu yàlla te amuloo xam-xam ci wàllu fiqh lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt lu mu metti metti metti metti nu góorgóorlu tuuti ba xam li nu war ci wàllu diine ak ni ñu koy jëfe ngir lislaam it ñu mën koo jox xàqam ñu góorgóorlu li ci des mooy li ñuy wax ihsaan te ñu bari di wax ne soobu ci wàllu tasawuf rekk mooy tax nga nga xam ak xam matale ko sëkk waaye ci gàttal mooy imaan bii ak islaam bii ko jiitu lépp loo ci jàng walla nga di ko xam walla nga di ko jëfe na yàlla rekk tax kon képp koo xam ne itam yaa ngi soobu ci tariqa la ngay def it yàlla rekk mooy tax bëgg sëriñ Touba te yàlla rekk tax jébbalu ci sëriñ bi te yàlla rekk tax di liggéeyal sëriñ bi te yàlla rekk tax di roy ci sëriñ bi te yàlla rekk tax yàlla rekk tax mooy doon lay tax nga xam yàlla sëriñ Saaliwu nag ca waxtaanam yu am solo ya dafa ne woon ñaar yi kenn mënu koo boole tële mooy taqullaaha mastataatum ak taqullaaha xaqa tuqaatihi mu wax ne képp koo xam ne ragal yàlla war na la ak góorgóorlu ci jaamu ko yaa ngi tàmbalee ci taqullah mastataatum mooy nga ragal yàlla sa kéemtalaay kattan maanaam li la sa kattan may ci wàllu ragal yàlla rek jël ko góorgóorlu ci jëfe ndigalam yi sa kem kàttan góorgóorlu ci worma yi ak jàpp gi ak lépp sa kem kàttan su ko defee nee na taqullaa xaqa tuqaatihi yàlla moo fay yeggale nit moo fay yóbboo mooy nga ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla diggante bi nag am fi kilifa moo baax lool ndax diggante boobu rekk mooy tax ngay liggéey ci yoonu yàlla loo xam ne boole ko ak sa jaamu danga xam sa boroom wa taqullah wa yuxallimukumullah waaw waaye nag faw nga am royukaay faw nga am looy xool faw nga am koo ne jàkk topp ko muy sa kilifa doxinam sell jub te rafet loolu mënu la ñàkk lii rekk a tax ñuy wut kilifa wut kilifa ngir yàlla topp ko ngir yàlla ànd ak moom ci liggéeyu yàlla yàlla rekk moo taxoon sëriñ Touba jóg akub yonentam leneen taxul woon yàlla rekk moo taxoon Serigne Touba jóg akub yonentam leneen taxul woon yàlla rekk moo tax sëriñ tubaa jóg akub yonentam leneen taxul woon mësta xool dara lu dul yàlla ak yonent bi sëriñ boobu nag. dafa am benn taalube bu am solo bu ko bëgg boo xam ne ba mu ñëwee ci moom da ko ne yàlla laay seet muy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine muy royukaay boo xam ne ci wormay sëriñ bi ci aqi sëriñ bi ci wormay njabootuk sëriñ bi ci aqi njabootuk sëriñ bi ci may dëkk bi ak ci aqi dëkk bi lépp góor góorlu na ci ba àgg ci foo xam ne mbindeef mënu koo jot donte nag kenn mënta jox sëriñ bi àqam ba mu mat sëkk ndax sëriñ Abdou Lahad de moo waxoon ni Cheikh Ibrahima Fall ak murit yépp buñ góor góorlu woon taxaw ci jox sëriñ bi àqamit mënuñu ko koo jox kenn jotewul àqam sëriñ Touba moom yi nga xam ne yàlla rek ko taxoon a jóg yàlla rek ko jox àqam sëñ Touba moom yi nga xam ne yonent bi rek ko taxoon a jóg yonent bi rek ko jox àqam ñun ñi ci des nag ñépp dañuy roy ci Cheikh Ibrahima Fall di xool aw doxinam maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy dund sëriñ bi rekk la dund boolewu kook dara jëmmam alalam njabootam léppam sëriñ tubaa la ko jox deseelu ko dara deseelu ko dara Cheikh ibraahima Fall bu sëriñ tubaa duggoon këram du fa gis lu moomul du fa gis loo xam ne waroon naa ñëw ci këram mu ne lii naa ko bakkar fegul sama bopp deseelu ko dara muy doxin woo xam ne taalibe bu ne mën na koo xool loolu itam noonu lañ ko tuddee rek waaye mag ñi àndoon ak sëriñ tubaa kenn ku ne ci wet ga nga féete jox nga ko akam ba mët sëkk sëriñ Touba borom daarul mooti rakkam la ñoo bokk lépp te mbokk dafa jege-jege goo xam ne mën naa sabab sax nawlonte borom daarul mooti xam mbóoti sëriñ bi xam ci sëriñ bi lu kenn xamul mu wormaal ko worma ju tol ni noppee ko ba ni muy dem ak a jafe nga ne borom daarul muti nee na boroom tuubaa nee na wax ja di mbóot waaye doxinam dey ak ak ak dundam lépp sëriñ bi la deseelu ko dara sëriñ ma sàmba mbokk la ci sëriñ bi sañees naa wax sax ni doom la ci sëriñ bi ndax moom sëriñ bi rekk la am moom rekk la xam noon yi rekk la dunde sëriñ bi desee lu ko dara maam Cheikh Anta noonu rekk la def ci sëriñ bi jox ko léppam deseelu ko dara sëriñ Balla Faali Jeng sëriñ Tubaa day kam waxoon ne amatuma jotu defaru amatuma jotu defare dane ko Balla Faali day defar naa ko kon képp koo xam ne bëgg ngaa defaru fawwu am nga royukaay sëñ saaliw dani woon sëriñ Tuubaa de dane bàll faali rek waaye moom ak ña mel ni ñoom ñëpp loola ca la ñu nekkoon mooy ku takkoo ak ñoom da nga defaru kon ndaw lu bëgg lu baax soo jógee war ngaa seet ku defaru war ngaa seet ku baax ku jub ku tege ci aw yoon mu womat la lii moo di ak murit ak murit du diwey sama sëriñ ndax baayam mooy sama sëriñu baay du diw lay xool ndax baa san baay baayam la doon xool déedéet doomi doktoor du faj ndax baayam doktoor la woon loolu yomb na trop képp kuy wut kilifa rawatina jamono jii ñu ne nga xam ne baatu kilifa sax nit ñi jëfandikootuñu ko wutal ku jub wutal ku baax wutal ku la mat sëriñ wutal ku lay wamat jëme ci yàlla wutal koo xam ne dinay waxtaan ak yow dina lay gindi dina lay leeral lëndëm lëndëmi jamono dina lay leeral itam yàqu-yàqu jamono ak pakk yi ak jiit yi ak jànkalaar yi ngir nga mën a mucc wutal ku la teg ci yoon wutal ku la dimbali wutal ku la bëgg lu baax ku lay xemmem lu baax wutal koo xam ne ci boroomam rekk la jëm te am na fi am na fi duma dugg sax ci di lim ay tur ndax koo tudd tagg nga ko koo tuddul yaa ko xas waaye ku ne xam na ku baax ku ne xam na ku jub koo àndal ren ba déwén gisoo ci sa bopp benn yokkute gisoo ci sa bopp dara lu lay tax gën a fonk sa boroom gën a wormaal sa boroom gën a xemmem sa borom wallaahi kooku jarta topp te nun ki nu am kenn amu ko ku nu fa jëme rekk yaay ka gën ci nun sëriñ tuubaa mi nu am kenn amu ko bépp taalube nag boo xam ne ànd nga sa kilifa muy wax ak yow yitte ju jëm ci liggéeyu sëriñ Muntaxa bii nga xam ne tey mooy jëmmi sëñ Touba moo fi toogal sëriñ Touba mooy jëmmam aw doxinam mooy yoon wa na muy waxee noonaa jub fam jëm foofaa baax wallaahi kooku rek a jara topp koo xam ne sa alal ak alalam lay boole jébbal ko mu def ci yoonu yàlla war dëkk bi ak xàqi dëkk bi ca njëlbéen nga ba sëñ muntaka tooge di boroom Touba booba la wax ak ñun ci war may waxtaan woowu ñu ngi koy fàttaliku ni tey kon bu nu toogee ba mbooloo jug jëm ci jumaa ji di defi loo xam ni dëppawul ak sunna mu jaral leen ñu xeex xeex fan ci penku jumaa ji nga xam ne kon yëf yi am na lu ci dugg lu ci bokkul nanu gën a góorgóorlu nanu gën a nanu gën a wormaal sëriñ bi penku jumaa ji nga xam ni boo xoolee ñëfa tëdd sëriñ saaliwu cheikh Mouhamadou Mourtada Serigne Abdou Khadir cheikh Mouhamadou Falilou sëriñ bi uuf leen ñu jàkkaarloog sëriñ Abdul Ahad jàkkaarloog barab bi ñuy jullee iit armeel ya nekk ca kanam nga xam ni góor yàlla yépp a nga fa tëdd muy barab boo xam ne sëñ Touba juróom-ñaari at yim dëkk tuubaa mos faa dox ak dal la juróom-ñaari at yi mu dëkk Touba musu faa dox ak dàll musu faa dox ak dàll sept yi mu dëkk Touba musu faa dox ak dàll ba léegi ñu daan ko wormaal sëriñ saaliw daan def su jógee njurul jëm si këram bu ñëwee ba jub foofu dafay simmi ay dàllam ci oto bi kilifa yu bari daan nañ ko ci roy dañ daan simmi seeni dàll ak seen mbaxane donte oto bi booba oto yaa ngi fay jaar muy barab bu yéeme te bari mbóot sëñ bi daan tere ku fa dox ak dàll moom ci boppam daaw fa dox ak dàll ba tey ñu tëj ko murid yi bu ñëwee gis ne fii dañ koo tëj oto du fi jaar ku am xel ku ne war nga ne lu tax ñu tëj fii ba oto du fi jaar ku fay jaar gis nit ñi di simmi seeni dàll nga àttana dem ba foofu di xeex di dóorante mën naa yóbbe nit ñi musiba boo xam ne yow doo xam sax lan la àddina ak àllaaxira sëñ bi day waxoon na ne ñaan na yàlla dëkkam bii di kërug ragal yàlla di këru xam-xam di këru diine ak yéeg ca daraja yi gën a kawe adhuuka an tajhaluhu daara tuqaa wal ilmi wa diini wa daara irtiqaa wallaahi ñett yépp daje na ci muy liimaan ak lislaam ak lixsaan sëriñ bi ñaanoon na boroomam dëkk bi di aljanna ci képp koo xam ne ab murit nga bu joxe boppam te yàlla tax waaye itam sëriñ bi ñaanoon na boroomam dëkk bi di pàkk ci képp koo xam ne wëlbatiku nga féttirlu sunu boroom def dëkk bi di sa pàkk boo xam ne da lay wëlbati wala ngay jéema xotti war may lislaam kon ku ñëw Tuubaa te xamuloo dara dara dara dara sax boo royee ci doxin wa doonte yow da nga woon di koo xam ne danga nga bëgg a xotti wormay lislaam dëkk bi dina wëlbati sa pas-pas boobu ba mu jub te yàlla defaloon na leen tawféex ngeen dajeeg waa muqaddimatul ma ñuy waxtaan ak yéen ngir delloo si leen ndax Tuubaa kenn mënta wax ba xottee fa war lislaam te dara jiituwul ci jàpp ne war ngaa xotti wormay lislaam nga bëgg a soppi loo xam ne ba ko yàlla di tëral ci sariya sëñ Tuubaa sancagul Tuubaa sëriñ bi ñaanoon na sunu borom dëkk bii di Tuubaa di lay boo xam ne képp koo xam ne taxaw nga ci kanamu yàlla ëllëg ne ko sa diine ji xaw ko ndax gisuma fuñ ko daa jëfee gisuma ñu daa roy sunna gisuma ñu daa topp yàlla ca nam ko bëggee yàlla sëñ Tuubaa may na ko dëkkam bi lay maanaam mooy sunu borom dina la ne xanaa gisoo woon Tuubaa wala déggoo woon dëkk bu ñuy wax Tuubaa ba nga xam ne kon sa lay woowa du jub mukk dëkk bi dëkkub ragal yàlla la dëkkub sunna la dëkkub xam-xam la dëkkub wormay lislaam la kon képp koo xam ne wuute nga ak loolu rekk na la wér cëng ne doo am ndam la ngay wut nekkul tuubaa dëkk bi du dëkkub saay-saay wa maskani sallim min fu fujjaari wam nun ala ahli bi maa in jaari dëkku bi du dëkkub jaahil kenn du ko fa wax kenn du ko fa jëf te sëñ bi ñaan na sunu boroom mu fegal ko itam lépp loo xam ne ay xeeti lor la wa taqina charra nasara wal yahud wa charra iblisa wa kulli si juhud wal jinni wa dajaali wa suudaani fi charqi wal maarib wal biidaani wa charra ma fi l ardi turan wa sama min zahirin wa batinin iktatama képp koo xam ne nit nga wala ngay yahud walla ngay nasaraan walla ngay ku weex wala ngay ku ñuul wala nga nekk ci kaw wala nga nekk ci suuf wala nga féete penku wala nga féete sowu wala ngay fexe ci lu nëbb wala lu leer yàlla may na sëñ Tuubaa sa ay yooyu nga jëme ci dëkkam bi yépp du sotti mukk ndax xaraasaxallaahu taala la wax yàlla nangul na ko lépp fegal na ko lépp nanu góor góorlu ndax war nanu ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañu te tuddee sunu bopp ay murit fawuñu góorgóorlu te jamono ji laaj na ko laaj na ko lool parce que jamono dafa jaxasoo nit ñi daanaka ñu ci bari ñu ngi wër ay repère ñu ci bari tey jii ñu ngi wër nan la ñuy def ba tege ci yoon woo xam ne njariñ dana leen ca fekk moo xam lu àddina la moo xam lu àllaaxira te sëñ Tuubaa nee na képp ku ma topp ngir àddina am naa ko ba mu mët sëkk te doyewuma ko dara képp koo xam ne topp nga ma ngir àllaaxira foofa it loo fa bëgg mënal naa la ko kenn ma jaaxal mooy ki nga xam ne ni ma yàlla def neexu ko te sëñ blaat nee na loolu sax bareetul kon lépp ci ndaw ñi di murit man dama jàpp rek ne il y a un échec wala boog am na ñu war a liggéey te liggéeyuñu na ñi nga xam ne dañuy nangu njébbalu taalibe yi di jël seeni responsabilité ci ñoom di leen xam di xam seen turu ndey di xam seen turu baay di xam fa ñu dëkk di xam lañu war a séq ak ñoom ba ñu tege ci aw yoon ba ñu yor melow jullit yor melow murit loolu dafa am solo lool yoonu murit lépp a ngi ci lépp a ngi ci yoonu murit diine jaa ngi ci ba mu mat sëkk waaye nag dañuy dañu lay endoctriner ci ay filosofi yoo xam ne ak idéologie ak logique yoo xam ne boo ci nekkee kenn dootu la mën a fëkk jëme ci dara ndax jamono ji dafa bari luy këfe jamono ji dafa bari ay xeeti seytaane xeeti pàkk xeeti gàllankoor moo xam ay jinne la moo xam ay rab la moo xam yahuud la moo xam nasaraan la moo xam nit la bu ñuul walla bu weex kenn ku ne mi ngi proposé loo xam ne quatre-vingt pour cent yi ku leen topp dinga nga sànku àddina di nga sànku alaaxira moo xam choix politique la moo xam lu mu mën a doon ku ne war ngaa jiital sëñ Tuubaa ci la ngay tànn man de su ma dee tànn danaa jiital jéem a xam bëggu sëriñ bi ci mbir mooma nu mu ca toll rek bu ma ko xasee ba xam ala kulli xaal noonu laay ci toll lu ma jàppoon lu wuteeg loolu jéem ko bàyyi jàpp lim jàpp képp ku fonk sëriñ bi fonk naa la ku wormaal sëriñ bi wormaal naa la ku bëgg sëriñ bi bëgg naa la moo xam nitu politique nga moo xam ëpp sëriñ nga moo xam jàmbur sempal nga sama yoon nekkul ci koo xam ne yow sëriñ bi bëgguloo ko wala fonkuloo ko wala joxuloo ko worma man daal maa ngi tànnee njëlbéen nga mooy xam ni nga def sëriñ bi noo ko def rek noonu laa la def boo ko jàppee jàpp naa la boo ko wormaalee wormaal la sama yoon nekkul ci dara lu dul loolu ndax man jàpp naa ne sama intérêt bi yëpp yëpp yëpp mooy sëriñ Touba sama intérêt mooy sëriñ Touba ci lu mën a doon nag moo xam àddina la moo xam àllaaxira la pour man lépp luy ñoŋal mbirum sëñ Touba loola mooy mooy la baax képp koo xam ne gis naa ne ñoŋal mbirum sëñ Touba sa yitte la. yaa ma gënal sama jëmmi bopp ji ak koo mën a doon ak lu la nit ñi mën a jàppe itam loolu sama yoon nekku ci kon kilifa yi nañu ma jéggal moomu du Mountakha de saa su ne li ko war mi ngi ci mi ngi koy wax mi ngi koy jëf ñépp a ngi gis li muy wax ak li muy def te nee na it képp ku am lu la naqari na nga seetaat sa bopp seetaat sa doxin mel na ni day naqar yi bari na kon ci xol yi mel na ni dey mettit yi nit ñi di yëg bari na balaa ñoo mere kenn nañ mere sunu bopp nanu xoolaat sunu diggante ak sunu borom ba xam ndax xéewal yi mu ñuy defal ndax ñu ko ciy sant nañu xoolaat sunu diggante ak sunu borom ndax li mu nu digal noo ngi ciy jéem sunu kem kattan nanu xoolaat sunu diggante ak sunu borom ndax li mu nuy tere bàyyi nañu ko loolu bu amee ba noppi nga def bilan ci sa digganteeg sa borom xam tu dois être satisfait nit ki mënta wéy ci li naqar yàlla tey am li ko neex bu àddina sépp jale woon ci kanamam bi xolam du neex du bég ndax ak ruuxam moo dundul te ruux mooy essentiel lu nit mooy essence am loolu mënuloo bég ci kaw meruk sa boroom te neb jullit nga ndax waxuma ku dul jullit kon nit ñi njàmbat gi dëkk bi ñëppay jàmbat ñëpp a mer ñëppay xuloo boo waxee ñu saaga njiitu réew mi saaga kilifa yi sëriñ si nangam waaye nag nañu seetaat sunu bopp noonu dëkk bi ay 4 x kese ñooy daw dëkk bi immeuble yaa ngi mel ni ay garab léegi dañuy jëmbat daanaka dëkk bi bouchon yi ñu fiy jàmbat yépp ay oto ko def ndax duy saret duy welo nit ñi bassin yu rafet la ñuy sol mbub mu ñu sol benn yoon ñaari yoon dootuñ ko bëgg a solaat jaaykat yi lekki mbedd yi seen jaay yi day jar te li ñuy jaay jaayewuñ ko ña dërëm jaayewuñ ko dërëm ah, boo demee restaurant fay ñaar fukki junni wala fanweeri junni te taxul kenn bëgg ndax loolu nag jaadu na seetaat nanu seetaat suñ bopp ñu ngi sol lu baax di lekk lu baax di tëdd fu baax di dawal oto yu rafet te mënuñoo am mbégte suñu xol mënta sedd léegi ñu ne léegi nan seet kun ko jiiñ bu bu bu bu ñi ci ëpp na njiitu réew mi la ña ca topp ne sëriñ si la waaw loolu léegi ñun amuñu benn responsabilité dara waruñu il faut ñu xam aussi lan la ñu bëgg xam aussi wan doxin moo ñuy may li ñu am ndax ñu ngi dimbalante te yàlla rekk tax pauvreté bi ñuy jàmbat ci réew mi naan nit ñi dañoo sonn ah tout le la ñuy wax ah nit ñi dañoo sonn les gens sont fatigués waaye est-ce que ku ne ak as tuut si nga am yaa ngi ciy dimbalee wóor na la ni as tuut yi ngi ci am yaa ngi ciy mosle am na ñu fi nekk nag dëgg ñu sonn ñoo xam ne ñun day wóor nañu ni buñ leen doon mosal as ci li ñu am coono yi dana wàññeeku individuellement chacun doit fair un effort pour que au moins tension sociale yi wàcc parce que tension sociale yi li ko indi mooy ñi am duñu dimbali ñi ñàkk ñi ñàkkit amatuñu pexe te nag loolu réew mu mu am la ñuy def mooy la gën a yomb rek njiitu réew mee fi ne nañ ko daggali saaga ba mu tooy xepp sëriñ see fi ne sëriñ see ñu ngi ci seeni climatiseur tëdd nañ leen saaga ba ñu tooy xepp loolu du pexe na kenn ku ne seetaat sa bopp kenn ku ne na nga seetaat saw doxin seetaat sa taxawaay ci réew mi ba xam sa xàqulaayi taalaa bu fekkee yàlla rekk a la ñor ndax yow sa diggante ak yàlla li la war yaa ngi ciy góorgóorlu ëkkus néew sa diggante ak société bi ñi nga xam ne sonn nañu ndax li la war yaa ngi ciy góorgóorlu akus néew bu boobaa wàcc nga it faut kon bu boobaa nga daldi xam nag ni léegi nag man la ma waroon def naa ko faut pas chercher à rejeter la faut sur l'autre chacun est responsable dans ce que kenn ku ne am na responsabilité ci li xew ci réew mii te nag bu demoon ba metti ba musiba di ca juddoo kenn lu ci mucc lum neex neexit ñépp a koy bokk senegal as réew su tuut sa la woon nit ñu tuuti nekk ci di dimbalante di jàppalante loolu jeex na kenn defatul te yàlla tax kenn waxatul te yàlla tax koo gis rek am na lu mu ëmb ci suuf di ko waxee wala di ko defee moo tax dañ naan kenn gëmul dara booy wax ñu ne la dóorkat nga ah ki lay wax dóorkat la xamul koo dóor ci kaw suuf ki lay wax seytaane nga xamul koo jaxasee kenn ci kaw suuf xamaluñ la dara mais il foog ñu coller la étiquette yow dóorkat nga yow léegi na sàcc nga ah tëriyaa nga sunu xaalis réew mi ngay dundee te du la mës a andil mukk benn nit boo xam ne danaan la cee murit saarix waxal dóor yim la dóor fan la la jaarale nan la def ba nax la nan la def ba lekk sa xaalis nan góorgóorlu te bàyyi yàqante bi te bàyyi yàq der te bàyyi dawal ay rumeur yu ñaaw ci ay nit jékki-jékki rek ne diw dóorkat la jëkki jékki rek ne diw seytaane la jékki-jékki rek ne diw sàcc la nangam ñun li ñuy def li ñuy def ak di ko wax lépp ci lu ñaaw ci nit ñi bu ñu jigee ma xam ne du ñuy nit nag faw ñu mer ñi mer faw mer waaye lan moo tàngal seen xol nañ ko seetaat nan góorgóorlu te xam ni am réew joxe loxo jàppante booloo bennoo moo koy defar waaye duy saagante duy waxante yu ñaaw duy xotti war may kilifa duy wax kilifa lu ñaaw ak du def ko déedéet notre société est en train d'exploser ku ne am na naqar bu mu ëmb ci xolam balaa nga koo xam rek ñaari oto klaxonné ka jëkk génnee loxoom day saaga loo ci teg rek ñu xeex te yaa ngi dawal oto boo xam ne daanaka dix million lay jar takk jongama bu rafet dugal sa kër tabax kër gu rafet te sa xol tàng foo toll ah réew mi baaxul réew mi doxul waaw te loo namm lekk togg ko te dëkkandoo bi ci wet gi amul dépense sa yoon nekkul ci moom bu kenn mere kenn na ku ne mere boppam loolu laa jàpp na ku ne mere boppam na ku ne mere réew mi fi mu toll nii kenn ku ne war ngaa seet lu tax nga mer ci ku mer ku ne ndax nag bu eh, eh, eh, énergie négative yii dana jur dara moom kenn xamul lu muy doon nag waaye mën naa jur dara balaa booba na kenn ku ne jël ay responsabilité am ka mu war a baalu àq mu jox ko loxo ne ko baal ma xaq ka mu yàqub deram te xamul lu tax muy yàqub deram mu téye aw làmmiñam ci kooka ab jullit jullit ñi dañuy mucc ci moom ciw làmmiñ ak ci loxo nanu góor góor lu ñun ci sunu jëmmi bopp yii kenn ku ne yaa ngeeg sa ndëngte gu mat sëkk te suturaal ci sa bopp sa kem kàttan boo xëyee rek xëy ci ay bu jàmbur yi ba jant bi soo nga tëddi nanu góorgóorlu réew mi noo ko yàq am nañu matériel waaye yàgg nañuy wax l'argent na fait pas le rëkk bi xoolal lu ne président def na ko fi ci loo ci ci ay tabax ak i pont ak i bâtiment lépp a ngi fi waaye li wér te wóor mooy buñ defoon sax ay immeuble jamaa ak oor nit ñi du ñu bëgg du bëgg boo génnee ci mbedd mi rek xam mer mi li ko waral su ci ñun la newul ci keneen ci ñun rek la waaw loolu nag lan amoon lu leen di wax di di di leen xamal ni kiy wax mook ñëpp xëy na daa aw làmmiñam di wax rek waaye mook ñëpp a yem ñun ñëpp ñoo war a góor góorlu seetaat sunu bopp. wormaal sunuy kilifa yépp nag jox leen seen xàq jox leen seen wàccuwaay jox leen seen worma te jiital ci jumaa yi Tuubaa jumaa ji moom lañu war a jiital ci lépp moom lañu war a jox worma jëpp ndax sëñ Tuubaa day diiney lislaam rekk ko taxoon na jóg bu demee ba samp ab soorooram sooroor boobu war naa am worma yépp ci biir ak ci biti ñu wattandiku li fi xewoon ña ko def ak ku mën a doon ak ku leen mën a jiite nanu dajale seen addiya wut seeni kaamil alxuraan dajale seen ngor ak seen jom ak seen diine dem ci cheikh du Mountakha tuubal ko te jéggalu ko te fës yéene lu mel noonu bañatee am mukk waaye noo ngi ndokkeel waa muqaddimatul ma ci seen taxawaay di leen sant bu baax ci seen taxawaay di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay di leen jaajëfal bu baax ci seen taxawaay di ñaan murit yi yépp itam ñu fonk waa muqaddamatul ma di leen bégal di leen bàyyi xel di leen jox addiya di leen jox ay jumtuwaay yu ñu gën a mën a liggéeyale Serigne Touba ci seen taxawaay bii ñu nekk ci biir jumaa ji ba ci ñi nga xam ne ñoo fa nekkit di daaray kaamil ba fa ne saxal fa alquran bis bu set ñu fay jàng alquran ci waxtu yépp yal na leen yàlla fay ak sëriñ Touba. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf